gaaw ci guddi Macky Sall woo ma téléphone ne ma dama la doon nuyu di la baalu àq ci tabaski gi ak damaa naman sëriñ Saliou ba koo siyaare si ma ne ko kon ne ni ñuy def mooy dangay ngay bàyyi ma wala sëñ Tayba Seck ma woo Tayba gaaw ci guddi ne ko Taïba waxal ma sëriñ bi ne ko Macky Sall nee na dafa bëgg a nuyu si suba ma woo sëñ ba ne ko neel sëñ bi ñëw naa sëñ Taïba daal di ñëw ne ma ubbil ma ma dugg ma yëpp ma yóbbu ko jox ko ndékki biñ ma ñëw gi sëriñ bi ne ko bi ne Mbacke da ngaa lool moo tax am na gan koo xamante ñëwoon na fi newoon nga ñëw na waaye jox nañ ko ndékki jox naa ko café maa ngi dem ñaanal ko yewi ko ndax xam naa ne moom rek am dugg na rek dina dina dina bëgg sëñ bi ndeysaan ci baax ga daal di fekk mu sóonu mu daal di jóg mu ne ëpp naa def jox ma kaala gi mu jox ko mu teg kaala dama dama woo ko mu ñëw Macky ñëw waaye baat bi ci am solo mooy loolu ngay bëgg loolu laa bëgg ngeen dégg ko bi mu ñëwee dafa toog mu ne ko la ma yónni wan son son yi bu sise ci yow ñaari baat ya ma la waxoon booba léegi maa ngi lay déglu yaa ngi loola waxtaan ak moom ñaanal ko ne gungeel leen ma ko ba ca oto ba sëñ Moustapha son yi bu gungeel leen ma ko ba ca oto ba kon moom li ko dimbali mooy màggalu Tuubaa dafa jot ndox manqué kenn amul ndox sëñ Sadio ñëpp ñëw di ko jàmbat sëñ bi yërmande ji mu bëree ndox mi manqué sëñ bi loolu def ko xaal sëñ bi génne te déwén sa sëñ bi génne 3 milliards woo ko ñu wax Mamadou Guèye SVTP nekk damaa bëgg ñu yokk ay forage ci dëkk bi moo ma duggee yaakaar naa moo ko mag Macky xaw mag Macky da koo dégg Macky ñëw ne ko sëñ bi xaalis ba nga bëgg a génne bàyyil man ma def ko bu ko def bi mu ñëwee def loolu ci déwén sa ndox mi bari lool saas bu ubbi rek mu xelli gars yi ñëw ki sëñ bi di ko sant naa ko sëñ bi sa magal gi ni mu neexee ndox ndox mu bari mi wallahi alazim yéen li may wax nii xam ngeen ko yéen yaknya ñaata yéen ngeen wat ay saako ay oto ay fani fan di wër sañcaan di ko sédélé du jeex léeg-léeg ngeen fëgg kër rek wàcce saakoom ceeb wàcce saakoom dugub wàcce saakoom suko daal di jall ben do bo ken dul sama tur am demi bis mu am dund bu bari bu mu bëgg sédélé di abo magasin bu mag ba nek njaareem ci boru sambé wo gouverneur suma jumul alkaati Traoré la ne ko damaa soxla magasin mu mag ba ci njaareem bëgg koo àbbu gouverneur loolu na ko day ministre sàngam ma ko yore xanaa ñu waxal ak ko sëñ bi ne ko su ma sañan day nga wax bu dee sama soxla la soo xam ne sa man la ñu bañ ko ko wax waaye ñu wax ko Macky Sall moom mu wax ko ko kon nag loolu moom li mu am dafa liggéey dafa liggéey Serigne Saliou kon boog ñun ñëpp nañ maase ñaan réew mi jàmm am bi ndax Serigne Saliou kat am na lu mu joxañ de xéewal yi ñëw nii xéewal yi ñëw nii sëriñ bi lu waxoon sëriñ bi lu mu waxoon mooy ne des na tuuti ci kanam kuy dimbali nit na nga ko dimbali léegi ndax des na tuuti ci kanam kenn du soxla ndimbalal kenn sëñ bi nee na ñaar la suñu borom mënta dimbali mooy ki ko wóoluwul ak yàkkamti rek sëñ bi nee na ki ko wóoluwul suñu borom ñaar la mënta dimbali mooy ki ko wóoluwul ak yàkkamti